biotox anti-moustique mooy aar mag ak ndaw ci bépp matu-matu am na booy piis ci rido ak moustiquaire ak booy diw ci yaram Val d'Afrique moo leen di may seen journal de la santé dalee nag jàmm askan wa yeewoo ci commune yi di Kahone Koumbal Keur Ali Bassine ak Ndofane la ñu jagleel ay jumtukaayu fajukaay jagleel ko seeni maternité lu ni mel nag dina wàññi lu bari ci coono yi nga xam ne moom la jigéen ñi doon jànkonteel ci yooyee bërëbu fajukaay Mamadou Camara askan yi yeewoo Ndofane Koumbal Kër Bakka Kër Ali Bassine Kahone mën nañoo nokkiwaat bu baax seeni maternité nag jox nañ leen ay jumtukaay yoo xam ne yu mucc ayib la pour ñu toppatoo ci bari dañ daan am jafe-jafe Youssouf Ahmed Bengelloune di président conseil départemental bu Kaolack jël na jumtukaay yooyu jox ko post de santé bu Ndofane Koumbal Kër Baka Kër Ali basin ak Kahone. comme na ko président de la république bëggee. jublu ci réduire. écart bi nga xam ne moo am ci commune rurale ak commune urbaine yi moo tax ñu ne dañuy jàppalante communes yi nga xam jàppale leen ci wàllum santé nit su amee ñaari soxla rek dafa wér dañoo gëm ne ne santé ci lépp moom la ñu war a jiital jàppalante ak waa population yi ñu laajoon leen seen bëgg-bëgg ñu ne ñoom nañ leen jàppale seen maternité ñu réhabilité leen ko par l'appui de l'USAID nga xam ne ne sama frère Baba Ndiaye moo initié woon opération bi ñun nag ñu ñëw di ko continuer daal di équiper maternité yi nga xam ne ne yëpp réhabilité nañ ko benn euh, yi nga xam ne ne dañ ci benn pèse bébé benn pèse personne adulte benn toise adulte toise enfant deux boîtes accouchement benn lampe baladeuse benn tensiomètre benn saturomètre benn table consultation benn aspirateur électrique ak benn table chauffante bi nga xam ne ne dinañu ko livrer très prochainement te ñu ne suñu objectif mooy nee nañ askan mu nekk ci aw tawféex tawféex boobu nag mënuñu ko am fekk ne nit ñi di am jafe-jafe loolu tax ñuy jàppalante xam ne ne ñoo nekk ci commune yi ma la doon wax conseil soulager leen jafe-jafe yi ñu am ci wàllum santé. président conseil départemental bu kaw lak ak ñi mu àndal nee nañ seen yéene ëpp na foofu ndax nag dinañ génn bitim réew su ko defee lépp loo xam ne lii wàllu wërgu-yaram la dinañ ci xar seen tànk tubéy jéem koo indi fii pour gën a suqali bërëbu fajukaay yi te nee nañ tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy doomu saalum yi nga xam ne ñu ngi bitim réew ñu ngi leen di tàllal loxo su ko defee ñu dugal seen loxo ci wàllu wërgu-yaram ci dëkk yi nga xam ne foofu lañu fekk baax fii ci Kaolack ak li ko wër Kaolack Mamadou Camara Sud ñu wax ci ab alliance mondiale bu bees boo xam ne dañu ko lancé ngir xeex feebaru sida ci tout tànk yi fekk atum 2030 bu ñu sukkandikoo ci données yi nga xam ne moo jóge ci rapport mondial bi nga xam ne moo soxal VIH sida te ONU sida daal di ko fësal ci tout tànk yi nga xam ne ñu ngi dund ak doomu jàngoro jooje ci téeméer yoo ca jël juróom fukk ak ñaar yi amuñu traitement bi nga xam ne moo leen mën a faj loolee nag néew lool bu ñu ko dee méngalee ak ni mu demee ci mag yi ndax ci ñoom ci téeméer yoo ca jël juróom-ñaar fukk ak juróom-benn yi ñu ngi faju ak antirétroviraux yi maanaam ci ñeenti mag yu dund ak doomu jàngoro sida yoo jël ñetti ñi euh, ñu ngi faju ngir indi saafara ci li moo tax ONU Sida UNICEF OMS ak seeni partenaire taxawal ab alliance mondial bu bees boo xam ne mbébétam mooy fekk njeexitalu atum 2030 benn xale buy dund ak doomu jàngoro sidaa dootul am jafe-jafe ngir jot ci garab yi nga xam ne ñoo leen mën a may tan te it benn liir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 Bonjour chers auditeurs, ouf de soulagement pour les populations des communes de Kawan, Kumbal, Kerali Bassine et de Ndofan. Leurs postes de santé respectifs ont reçu des mains du président du conseil départemental de Kaolack du matériel destiné aux maternités, ce qui permettra d'atténuer la souffrance des femmes au niveau de ces structures sanitaires. Mamadou Kamara. Les blouses blanches et les populations de Kumbal, Kerbaka, Kerali Bassine et de reçu du matériel médical destiné à leurs maternités respectives. Youssouf Ahmed Benzoloum est le président du conseil départemental de Kaolack. Nous avons procédé à des dons de matériel médicaux. S'ils participent euh, à une opération de venir en appoint des postes de santé situés dans le département de Kaolack. Ça a été un processus initié par mon Baba dans le cadre d'un programme financé par l'USAID consistant à réhabiliter des postes de santé, plus particulièrement des maternités. Aujourd'hui, nous sommes venus équiper ces maternités réhabilitées par nos prédécesseurs. Le moment de le féliciter, de remercier les partenaires qui nous ont aidés à réaliser ce programme, demander au bénéficiaires de bien vouloir euh, prendre soin des éléments que nous leur offrons et de bien l'utiliser au profit des populations. C'est le moment de remercier les populations qui nous ont accueillis, les chefs de village qui nous ont reçus, les autorités et les autorités qui nous accompagnent. Leur réaffirmer notre disponibilité à travailler avec euh, les structures sanitaires du département dans le but d'atténuer les souffrances des populations dans ce domaine, de soulager les structures sanitaires qui ont des difficultés dans le domaine de l'équipement. Dans le cadre de notre programme, nous avons visé le développement durable de Kaolack à travers une résilience écologique du département, une prospérité économique et un épanouissement social. Et qui parle d'épanouissement social parle d'une bonne prise en charge sur le plan sanitaire, raison pour laquelle fusionner le monde entier à la recherche de partenaires pour booster le secteur de la santé dans le département de Kaolack. Ces élus ont également tendu la main aux fils de Kaolack qui sont dans la diaspora pour qu'ils participent à l'amélioration des conditions sanitaires dans leur localité d'origine Kaoulak. Mamadou Kamara, pour mettre fin au sida chez les enfants d'ici 2030, selon les données qui viennent d'être publiées dans le rapport mondial actualisé sur le sida 2022 de l'ONU-SIDA, seule la moitié, soit 52% des enfants vivant avec le VIH bénéficient du traitement salvateur disponible. inquiet de voir les progrès marqués par le pas pour les enfants et d'observer un écart croissant entre eux et la population adulte, l'ONU-SIDA, l'UNICEF, l'OMS et leurs partenaires ont mis en place une alliance mondiale en vue de faire en sorte que d'ici la fin de la décennie, plus aucun enfant vivant avec le VIH ne se voit refuser un traitement et afin d'empêcher que de nouveaux nourrissons ne soient infectés euh, par le VIH. C'est tout pour aujourd'hui.